jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba jërëjëfe sëriñ Touba ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sant bu baax sëriñ Touba di siyaare mbooloo mépp mi fi teew di jiital ci nuyoo bi ak siyaar bi ak saaxibul fadilatu sëriñ Cheikh Sidi Mountakha Mbacké Cheikh Mountakha Mbacké suñu borom guddal aw fanam wéral ay cëram balimu naal yede iya ko lëggéeyal serigne Touba suñu borom defal ko ci lu kawé njottam serigne Mbacke Guèye khalifa serigne Mabi Guèye jambaari serigne Touba ja diko ñaanal suñu borom guddal aw faram wëral ko ak rakam ju baax ji sëriñ Amsatu ak serigne cheikh ak mboolem njabootu serigne Mabi Guèye di ñaan naal yi iya ñu laal yene ko lëggéeyal serigne Touba suñu borom defal ko ci lu kawé njottam barke cheikhul khadim di siyaare bu baax sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbakke xalifa Daaru Xudus di ko ñaanal suñ borom yàggal ko fi tam ànd ak wér ak sëriñ Abdourahman Mbakke Gaynde Fatma ni ki noonu di siyaare bu baax borom kër gi borom ëtt bi sëriñ Mbakke Mohamed sëriñ sëriñ Moustapha Mbakke Mohamed di ko ñaanal yàlla suñ borom guddal aw fanam lool wéral ko bali mu naal yëpp yéene koo liggéeyal sëriñ Mbàkke Soxna Lo Mohamed ak mboolem njabootu Cheikh Moustapha gi suñ borom defal ko fan wu gudd te ànd ak ba mu naal ba eggalee sagoom barkeb Cheikhul Khadim na ñëpp wax Cheikh Moustapha Mbàkke Mohamed yàlla na ko fi yàlla suñ borom yàggal lool te ànd ko wér bali mu naal yi lépp yéene koo liggéeyal Cheikh Moustapha suñ borom defal ko ci lu kawe njottam xanaa rek ñu jëkkante ak waxtu wi mu nii bis bi nga xamne mom lañuy la def tay ni ci ko jambar Cheikh mabi gi te ku tuddu Cheikh mabi tuddu alquran waye tuddu istighfar tuddu salatu ala nabi mu melni ni bis bi di bi biñu ko tàmbalee ba weer bi teroo rek bis bu yalla sak dañu xey jang limbu takku ci alquran ndax ku ne xamne Serigne mabi moy alquran te njabotam yi nek ci dëkk bi kenn ku ne fa nga nekk daaraay alxuraan nga fa samp di yeggalee liggéeyu sëriñ Mabéye bi fa nga xam ne moom da ko sëriñ bi bëggewul loolu Cheikh Mamadou Moustapha bii bokk ci làmp yi nga xam ne moo njëkk fii ci Touba taxal fi daaray alxuraan di fi yëngu di ci liggéeyal sëriñ Mabéye ba liggéey bi ak si fi mu ak si tey ba daara yooyu tey buñ ko doon tël ki ne ëpp na téeméeri daara ci biir Touba te daara joju jo Cheikh mour Moustapha mi nga xamné ne taxal bis bi tay nek taw daara yépp kon Cheikh Moustapha dañ lay ñaanal suñ borom guddal saw fan wéral la ba di nga na lépp yéene ko liggéeyal serigne Mabé sa maam suñ borom defal ci kaw sa njort waaye niki nonu njabootu serigne Mabé gi yépp ken téwul ken ken ken manki wu ñëpp nga fi njaboruk serigne Mabé gi yëpp kenn manqué wul ñëpp a fi tok ndax euh, alhaji serigne Mbacke gi yabal na fi ab taawam Serigne Mara gi ak Serigne Ndiaye gi ak mbooleem ay rakkam ñëpp ñu ngi fi teew niki noonu Serigne Amsatou Gueye moom Serigne maa bi di borom yëf yi moom it démb ci suba la fi ñëw fi la fanaan yenn fi ba ci ngoon la wàññiku li muy tëli tëli ñëw na fekk si jataay bi ñu ñaanalal ñu ko suñu borom guddal aw fanam wéral ko ba li mu naal yëpp yéene koo liggéey lislaam suñ borom yeggalee ko ko nam nam bëggee njabootu sëriñ Mabé gépp a ngi nii ci kaw sëriñ Mara Guèye ak sëriñ Ndiaye Guèye ak sëriñ Mabé Guèye Amsatou mi nga xam ne mooy am sëriñ Amsatou bi sëriñ Amsatou di jóg moom la batalee mu toog fi toogaayam toogal fi mboolem njabootu sëriñ Amsatou gépp waaye ak sëriñ Ndiaye mi ngi ci kaw moom it ak sëriñ Mara Guèye teewal fi mboolem njabootu alhaaj sëriñ Mbacke Guèye kon seex mu Moustapha mu mel ni woote nga waaye nag woote bi am na solo lool ndax bi nga wootee mbooloo mi wuy si nañ la woote ñu wuy la nag jikko mom mo koy maye ndax nit da ngay defar sa jëm ba ko la gis bëgg la waye nak nga defar sa jikko ba ko ak yow dut la mëna a baax te ku ne xam na ne doxin woowu moy saw doxin kon nak woote nga nit ñi wuy si nañ la mbokk yi wuy ci jotaay bi yépp ñu ngi leen ziaré bu baax di leen dalal sëriñ Bousso imam ñu ngi koy ziaré bu baax baax baax diko jox waccu waye diko ñaanal suñu borom guddal aw fanam wërël ko bali njabootu Serigne Touba gi naal ba teg ko ci loxoom mu yeggale ko na ko bëggee ak mbooleem njabootu Serigne Touba gi niki noonu Baye moom it mi ngi nee toog di kenn ci jëwriñu Serigne maa bi ànd ak délégation bi mu àndal bi yëpp ak Serigne Baye Bass moom it mi ngi toog jëwriñ di jàmbaar ci kër Serigne maa bi moom mi ngi nii toog ak mbooleem jaboot gi rek ñi nga xam ne ñoo fi teewal seex si. te alhaaji sëriñ Mbacke Gueye xalifa sëriñ maa bi nekk jëwriñu seex yëpp tey sëriñ Ndiaye Gueye mi nga xam ne mooy euh, jëwriñam mi ngi nii toog ci kaw ànd ak mbooleem doomi seex yi euh, buñ ci tànnee rek sëriñ Xaadim Gueye ak sëriñ ba Bassirou Lo ak mbooleem kilifa yi ñu àndal yëpp ñu ngi nii teew kon sëriñ Moustapha daal dafa mel ni woote nga mbooloo mi wuy sëriñ la ñu ngi ñaan ci yàlla ak yonent bi sëriñ Touba jataay bii nga yàgg koo wootee ñu yàgg la fee fekk te at mu ne loo ci man ren bu nee nga man lu ko ëpp ci loolee seexul xadim na ngeen xam ne daal wuy si bii ngeen wuy si mbooleem jabaru sëriñ Mabeye Guèye gépp ngeen ko defal ndax buntu kër sëriñ Mabeye moom genn càlla la rek la la sëriñ am satu doon wax rek ataaji sëriñ Mbacke Guèye moom moo fi moo moo mooy sëriñ bi moom jëwriñam la rek topp ci ginnaawam kon nag moom buntu kër sëriñ Mabeye képp koo xam ne am nga ci kenn rek jàppal ne am nga ñëpp waaye ku ci ñàkk kenn ñàkk nga ñëpp noonu mooy doxit noonu la ñuy genn càll lañ benn bopp lañ genn buum lañ alaaji sëriñ Mbàkke moo nekk ca bopp ba lu mu bëgg lool lañ bëgg lu mu bëggul bëgguñu ko lu mu xam loolu lañ xam lu ñu xamu xamuñu loolu di ñaanal alaaji sëriñ Mbàkke mu yàgg fi sëriñ Moustapha sëriñ Mouhamadou Mamoune Bousso mu ne mi ngi lay nuyu bu baax mi ngi lay sant te di la gërëm di jël nuyoo bokk yam yi mu ak kilifaam yam bàyyi di ko teg sa loxo nga tegal ko ko ci sa kilifa yu baax yi nga xam ne ñoom nga yaakaar muy njabootug Serigne Touba gi tàmbale ci Cheikh Ahmadul Mokhtar ak sëriñ Moustapha Mbacké Mohamed ak sa kilifa yi nga xam ne ñooy say waajur ci kër Serigne Mabeye Guèye Serigne bi nee mi ngi nuyu itam bu baax bokki sang yi mu fekk fi jotaay bi di leen ndokkeel baax te di leen gërëm baax te ne mi ngi ñaan yàlla jotaay bi nu yàgg koo daje ay ati at ci barab bii ak yeneen barab te lépp loo xam ne jëf nañ ko fi mbaa ñu wax ko fi walla muy alxuraan wala xasida yu njàng wala ay bernde sëriñ bi ne yàlla na ko yàlla nangu def ko hadiyu sëriñ Tuubaa ak hadiyu sëriñ Mabeye Gueye ak mboolem njabootam ga ak bokkam yépp sëriñ Moustapha sëriñ Mourou Mamoun Bousso mu ne sa kóllëre ak moom yàgg na lool mu gis la ngay ku bëgg lu baax ku bëggub taalibe ku jaar ci yoonam mag di xentu ba tax ngay taxawal bis bi lu yagg di dundal nono ak cosaan li nga xamne ne nga fekkon baax di sant yalla di sant serigne touba di ñaanal sa maam ju baax ja ne loolu soko ko ko yëgalee boole ko ci dara jaale ko ko amee na la cant ak ngeureum lo xamne ne mënu la ko fay ndax li nga dajale nit ñi fi ñaari mbir rek la muy sant yàlla ak ñaan sant yàlla ak ñaan nag day ñaari mbir yoo xam ne kenn musta am daraje dafa ko sa bopp yow kepp fokk nga woote ak wàllu ku la ci jàppale kon boo dee sant sëriñ bi di ñaanal sa maam wax ko ñu ñu baax ñépp moom mii nga am ci moom ak cafeel ak yaakaar ak bëgg koo jëriñ ak bëgg mu jëriñu tax nga yëgal ko ko kon nee na dana ci taxaw ci ñaanle la taxaw ci santle la ba noppi ñaanal la ñaanal mbooloo mi fi daje yëpp ba kenn ku nekk bu delloo yëg yokku saayir yëg yokku baatin sëriñ bi nee na mbir mu mel nii ku la ci boole ku nekk dafa am lu mu bëgg ci yow dafa am lu yaakaar ci yow daa am fu mu la teg te ne loolu umpuliwu ko sa digganteek ak moom ay bokkam yëpp xam nañ ko sa bokk yëpp xam nañ ko kon ne mi ngi ñaan kuréel gi yàlla na ko yàlla saxal mu yàgg lool ba ëllëg ñu bokk jof ci kanam sëriñ Touba. te loo xamal ne yoon waaye ngii nit amul lenn ay bokkam nit amul lenn lu gën aw nonoom lu mu doon ci ay maamam te muy doon lu baax mu sàmm ko kon mi ngi lay sant mi ngi lay gërëm te la xamal ne jóg na jotaay boo xam ne mi ngi jóge ci ndigalal kilifaam sëñ Amar Bousso xalifa sëñ Mbàkke Bousso ak mboolem magam ya fa nekk yépp ak mboolem rakkam ya fa nekk ak soppeem yépp bu fekkoon ne du xataa yëpp jamono ji ak waxtu woo xam ni kon dana fi indi mbooloo mu ak mi fi andi waaye nag mi mu fi andi kenn ku ñëwoon ku ne mën na ko fee wóotu ay bokk yu baax lañ yu ànd ak moom ci lépp lu mu nekk ba tax na kon bu ñëwee ñëwal na bokki Bousso ba yëpp teraanga bi itam teraanga yi sëñ mbakki Bousso la teraanga yi waa kër sëñ Mbacke la xolam set na ci bu baax ñam bàyyi it seen xol set na ci bu baax mi ngi sant bu baax di gërëm bu baax di ñaan yàlla nga koo taxawee te am ci ngërëmul sëriñ bi am ci yokku ak yokku saay ak yokku baatin képp ku la jàppale ku nekk sëriñ bi ne mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Tuubaa mu yokk ba yëg ko te suñu borom téyel yi ba na fekkaat ko at yu bari doon na ay wér ak ay xéewal yoo xam ne liggéeyub sëriñ Tuubaa bi kenn doon ci man sëriñ bi ne mi ngi tëjee boo xam di ñaanal Cheikh Mamadou Mountakha suñu borom bàyyi ko fi lool mu yàgg fi te wér ba li mu yéene ak lim naa la li sembu mu àggale ko te nun ñëpp nu bokk ko fekkee waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaamu ala asrafil anbiyaai wal mursalin sayidina wa mawlana wa nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa sallam taslima barki borom Tuuba asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh bokki jullit yi ñuy teewlu ci biir réew mi ak ci bitim réew fu ñu mën nekk noo ngi leen di nuyu nuyu bi lislaam noo ngi leen di siyaare noo ngi balu ñëpp àq tey dogal ñëpp ngant itam ñaan yàlla suñu mu defal nu tawféex noo ngi jiital it ci nuyoo bi ak siyaar bi saahibul fadila Cheikh Mouhamadul Mountakha Bassir Mbacké mi nga xam ne moo toog toogaayu Cheikhul Khadim tamat ko sëkk mu koy ñaanal suñu ñaanu taalibe ci ndigalul kilifa yi yàlla suñu borom ci mbaaxam ak yërmandeem ak coobareem yàlla na ko fi bàyyi fa li mu naar yéene koo liggéeyal Serigne Touba ah, mu def ci lu kawe njortum te ànd ko mboolem taalibe Serigne Touba yëpp ñoo ngi yëkkati sunu kàddu yi itam ci ndigal loo xam ne dafa bàyyikoo ci sunu ay kilifa mooy alxaaji yi Mbacke Gueye mi nga xam ne moo toog toogaayu Serigne Maa Gueye jaar ci Serigne am setu rakkan jëwriñam ak Serigne Cheikh Mbacke Gueye waaye nag muy kàddu yoo xam ne dafa bàyyikoo ci daaira Sillatou Rahim Sillatou Rahim mooy daaira bi nga xam ne moo lëkkale sëti sëriñ Maodo Gueye yu góor yi ak ñu jigéen yi ñu ne ci biir réew mi fii ci Sénégal ak ña nekk ci bitim réew fu ñu mën nekk mooy daaira bi nga xam ne moo leen ci benn baat képp te ka nekk ca bopp bi sëriñ Mara Gueye muy sëriñ Maodo Gueye moom alhamdulilah sëriñ Mbacke géey waaye itam ak sëriñ Ndiaye Gueye mi nga xam ne moo jëwriñu daaira bi. ñu jox ndigal Serigne Mabine Gueye moom Serigne Amsatou mi nga xam ne bi ñu fiy bàyyi ko léegi di génn Serigne bi yebal leen ci leneen moom lañ bàyyi mu toog seenu toogaat ndax xam ngeen ne jamono léeg-léeg dafay xat te rawatina buntu kër Serigne Mabine ndax alaaji Serigne Mbacke Gueye Serigne bi def koo tànn jiital ko ci bopp mbooleem seex yi nga xam ne dañoo aju Daaru Xuddoos te mbooleem xew-xew yi am ci buntu yooyu yëpp mu war di ko taxawee. te njaboot bi ñoo di ay tànkam moo tax ñenn ñi weññu ko léegi bàyyi fi ñu ci def ñu nekkal leen fi ñu fi nekk nag sëriñ Mabé yi sëriñ Amsatu bi seen kilifa toog fi yu toogaayu sëriñ Amsatu bi ci ndigal sëriñ Amsatu ndax sëriñ bi fi la fanaan bii yenn du fi jii ba julli tàkkusaan soog a delluwaat ci yitte yi bàyyi fi sëriñ Mabé yi mu nekk fi kaddu yooyu yi nag muy kaddu yoo xam ne dafa jaar ci ñoom wàcc ci sëriñ Moustapha muy kaddu yoo xam ne rek mooy kàddu kaddu cant ak ngërëm jëmale ko ci bokki jullit yi li ñu ci jiital mooy dalal bokki jullit yi fi teew massawu leen itam ci coono ñëw yi ak coonooy toog yi ak tàngaayu akatu jamono ndax li gën ci doomu aadama li gënal doomu aadama te gën ci moom mooy temps te alxuraan dafa wax ne euh, mënu leen a baax lu dul ne euh, da ngeen a jël li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko te yàlla tax te doomu aadama li gën ci moom mooy temps ak alalam te gis nañu ne bis bii ba ñu koy jàpp di ko woote di ko waajal ba tey jii mbooleem taalibe Sëñ Tuubaa yi ñu ngi yëkkati seen i ñàq ak seen addiya di ci dox waaye ba ñu xëyee ba tey doomu aadama yi tàqalikoo wuñu ak Sëriñ Moustapha tàqalikoo wuñu ak sëti Sëriñ Maabe yi ànd ak ñoom ci bis bi di ci gunge te loolu lu am am solo la Sëriñ Moustapha wax ne ñu ngi ànd ak bokk kilifa yi di sant mbooleem ñi fi teew cant yooyu yi nag mu jiital njabootu Sëriñ Tuubaa yi nga xam ne ñooy am lu mbàkke bu ñu ko waxee mbooleem ku sant mbàkke mi ngi ci biir ndax ñoom ñooy sang jataay bi ñooy kilifa jataay bi te itam ñoo taaral bis bi te it bis bi ñuy woote seen alal la daara ji seen alal la njaboot gi seen njaboot la kon buñ yeble wan mu doon sëkk waaye dagg gi seen yitte ñëw ànd ak njaboot gi bis bi Serigne Moustapha wax ne mu ngi ànd ak kilifa yi ak bokk yëpp di leen ci sant di leen ci jéggalu te di leen ci massawu ci teewaay yi di sant itam doomi soxna yi nga xam ne ñoom la ñuy wooye ay doomi seex te ñu bokk cërub Serigne Touba bi Serigne Touba radiyallahu taala am mi nga xam ne fépp fu njariñu biir ak biti nekk rek moo ko fa def moom mi doon séddale te tànn ci mag ñi nga xam ne ñoo ko dara séddu leen cëri lislaam ñu séddale ñooñu nga xam ne ñoo fi wuutu seen waajur yi ñu di leen wooye ay doomi seex te ñu fees dell ci jataay bi ca suba ba tey tàqalikuwuñu ak Serigne Moustapha ñu am njaboot bi ngir xam ne bis bi seen bis la sëriñ bi wax ne ñu ngi leen ciy sant ñu leen gërëm di leen tuubal ci jéego yi ndax xam nañ ne jamono xat na ak yéen kon jataay bi ñu ngi leen ko jéggulu xam na ne da ngeen a xam ne bis seen bis la rek mu wax ne mi ngi sant itam bokki boppam yi nga xam ne moom lañ bokkal sëriñ Mabé bokki boppam yi nga xam ne moom la bokkal sëriñ bu buñ ko waxee nag tàmbalee na ca way juree ba ci gën a tuur tuur tànk ci njaboot gi ñu sant gi ak ñu góor ñi ñu jigéen ñi ñëpp ci taxawaay bi ci bis bi ndax bis bi njabootu sëriñ bi bépp a ko moom waaye nag sëriñ Moustapha lañu koy adressé takku gi ak pësteef bi ak dogu gi ak jaayante gi ak ànd gi ci bis bi ci lu nëbbu ak lu feeñ lu nit ñi gis ak lu ñu gisul lépp sëriñ Moustapha wax na ne lool yi mu ngi leen koy tuubal di leen ci massawu di leen ci jaajëfal di ñaan ñu amee ci ngërëmul sëriñ Tuubaa di sant it bokki deret yi nga xamante ne bi ñoo ko féete ci wetu kër way juru jigéen nga xam ne ñu ngi fi teew sëriñ alhaaji sëriñ fay nekk ca bopp muy délégation boo xam ne bu takku la at mu ne bu bis bi ñëwee jiitu bis bi dañ fiy jiital si seen loxo addi yu bëree bëree bëri yebal seenu njaboot ñu jiitu si laxasaa yu takk seen digg nekk ci liggéey bi su suñu xëyee defaat délégation àndaan ñëw indiwaat addi te ñu ngi ci biir jataay bi fees ci dell ñoom itam euh, te alaaji sëriñ fay jiitu ko jiite ko te at mu ne ñu daa ko defee noonu doon ko ànd ak suñu wéyjur wa muy alxaaji sëriñ Fall ma nekk ca Kaffrine sëriñ bi wax ne mi ngi sàkk ñi fi teew ñëpp ñu ñaanalal ko alxaaji sëriñ Fall dafa daa ànd ak moom jataay bii di maamam di xaritam dàqu ci gunge te tey yàlla suñu borom dogal mu wujj boromam dimanche bi ñu passé ñu jébbal ko boromam sëriñ bi wax ne kenn ku ne fa mu teew loo man ci ñaan nga ñaanalal ko alxaaji sëriñ Fall yàlla yërëm ko fa mu tëdd te jéggal ko itam alxaaji sëriñ Fay sëriñ Moustapha ak njaboot gi ci turu kilifa yi muy sëriñ Amsatu ak alaaji sëriñ Mbàkke gi wax nañ ne sant na taxawaay bi ci biir ak ci biti yëg nañ ko xam nañ ko ñu ngi la ciy ñaanal bu baax baax di ñaan yàlla defal leen tawféex suñ la tuddee nag njaboot gépp ak ci biir sëriñ Mouhamadou Badiane mi nga xam ne mooy xalifaab sëriñ Morxas Badiane dañuy jaay ci sëriñ Moustapha te nekk ci jataay bi nekk ci bopp njaboot gi sëriñ mu Moustapha wax ne moom itam daf lay ñaanal rek ñaanal taalibeem yàlla defal la tawféex ndax fa nga ko féete féete fa njaboot ga loolu xam na ko te xam nga ko te njaboot gi xam na ko te ñu jaxasoog yéen tam xam na ko di ñaan yàlla defal la tawfeex sëriñ bi wax ne mi ngi sant bu baax di gërëm itam taalibe boppam yi nga xamante ne bii dañoo am ci moom te jokk ci moom sëriñ bi wax ne mi ngi leen di sant di leen gërëm li mu leen di sant di leen gërëm itam bokk gi nga xam ne dañ koo bokk liggéey sëriñ Touba bi muy seen jëwriñ ci yoon wi te moom dara yitteelu ko lu dul gërëmul sëriñ Touba dara yitteelu ko lu liggéeyal sëriñ Touba te saa yu geesoo seen leen ci ginnaaw jamono bu ne génne ko dal ñu fas yéene ànd ak moom liggéem suñ Tuubaa bi seen jëf ci bis bi ak bis ya ko jiitu sëriñ bi yëg na ko xam na ko ndax taraanga yu bari ngeen fi jiital dolli ci démb ngeen yeewu nag bu mag indi ko fi joxaat ko sëriñ bi te tey jii dajalewaan ngeen addee ju bari indi sëriñ bi wax ne ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm di sant bu baax ak di gërëm dongo yi nga xam ne dañoo jaaroon ci daara ji doon fi jàngi alxuraan di fi sàkkoo xam te yàlla dogal lañ fi doon wut yàlla suñu boroom ci mbaaxam ak yërmandeem mu wërsëgaleen ko mu delluwaat ci seen kippaaru way jur ya ngir uuf way jur ya waaye ñu sàmm kóllëre gi nag delloo si sama njukkal sos daayira boo xam ne at mu ne wërsëg bu bari lañ fay dajale ci xaalis di ko teg ci loxoom Sëñ Moustapha di ko ko jàppale ci bis bi waaye fu ci waay nekk nga bàyyi la nga jàppal ñu ànd ak Sëñ Moustapha takk saggar nekk ca Sëriñ Moustapha wax ne ñu ngi leen ciy sant di leen gërëm fàttewu leen Serigne Moustapha wax ne mi ngi sant day gërëm itam ay bokki boppam di ay xaritam di ay wëllëreem di ñoo xam ne jaxasoo naa ñoom ci biir ak ci biti muy Serigne Mansour Serigne Mansour Wade yow ak say bopp yëpp Serigne Moustapha mi leen di sant ci turu kilifa yi jëf ju rëy a rëy a rëy ngi koy def yoo xam ne lu yéeme la ndax yéen de dégg ngeen waxi Serigne tubaa ndax Serigne tubaa de dafa waxoon ne. كل ورد يريد المريد لحضرة الله ولن يعيد سواء انتمى إلى الجيلان أو انتمى لأحمد التيريان أو لسواهما من الأقتاب كلهم قطحا على سواء لون سيرين توبا واخو نون ميپ يردو واي جاب ري مو خامي ابو حسن ساسا يردو با ولا شيخ ماتي جان شريف ولا شيخ عبد القادر جيران ام ني ملني نيوم سي تانيف سيرين توبا نينا يردو وا جاب سي سين يردو يوي تا سيلال mu yóbbu la ca xadaraat suñu borom ba dafa mel ni Serigne Mansour Serigne Moustapha wax na ne moom njaboot gi yëpp yëg na seen pas te xam na ni yéen dégg ngeen waxi sëñ Tuubaa jooju ndax kenn ku ne xam na seen wàcc waaye ci buntu kër Alaaji Maalik nga xam ne tarixatu Tijaan ci ngeen bokk sa mag ji nga xam ne yéen a bokk lépp di muxaddam bu mag boo xam ne teen bi kilifa ci tarixa bi la waaye teewut nga amuk dogu sa kóllëre rek seen safaa nga jàpp ko yaay sama at yu nekk ngeen di indi taraanga yu baree bari ci bis bi yoo xam ne du ngeen bëgg ko ko tudd ba ren jii giléem gi nga xam ne moom lañ fi rey boole koog nag yi fi ànd nga xam ne li mu xaalis bu takk lañ ko jënd yaa yónnee xaalis bu takku ne nañ dem jëndi ko te buñ leen wan na ngeen waxaale ga leen gënal su manqué ngeen woote ñu dool dolli te loolee bëggoo ku ko tudd te loolu moo gën a néew ci li ngay jëflanteeg Sëñ Moustapha di ko jëflanteeg buntu kër Sëñ Mabé loolu sëriñ bi wax na ne bëggoo ku ko tudd waaye bu njaboot gi teewee mu séeréer leen ko dafay am solo di la ñaanal it bisu lislaam bi di bisu alxuraan di bisu sëriñ Tuubaa bii ñuy fàttalikoo sëriñ Tuubaa ak magam ñu baax ñi mu lay ñaanal ci màggu bis bi yow ak sa bokk yal na leen yàlla dolli taxaw dafay leen ci saayir ak baatin mu wax na itam mi ngi sant bu baax di gërëm itam daayira soppey Seydina Mohamed soo waxee daayira soppey Seydina Mohamed nag mboolem buntu kër sëriñ Mabé yëpp sëti sëriñ Mabé yi yi ci nekk te tudd soppee Seydina Mohamed daayira yooyu seen takku seen pastéef ci bis bi sëriñ Moussa wax na ne mi ngi leen koy jottali di leen ci sant ci ndigalul kilifa yi seenu cant mu koy teg ci daayira soppee Seydina bi ne ci kër gii di ay taalibe boppam ak i wëllëreem nga xam ne bi ngeen ñëwee ñoom ngeen fekk si ànd ak ñoom liggéey bi te sëriñ Pape Faye jiite ko sëriñ bi wax ne mi ngi leen ciy sant bu baax a baax di leen gërëm ci seen taxawaay di sant baax soxna yi nekk ci koñ bi muy mbootaa yeeg kóllëre yeeg àndandoo yi seenu dogg ak seen pastéef ku duggantewut ak seenu safaa xam bis bi du xam seenu doxin waaye ku ne xam na ne dëgg dëgg bis bi ñu ko ŋànk ñu leen ci ëppale bariwut sëriñ wax ne cantam ak gërëmam mi ngi koy teg ci loxob soxna Mariam Siis mu yóbbaaleel ko mbooleem ñi nga xamante ne bii ñoo ñu fi nekk bàyyiwut kenn di sant itam communicateur traditionnel yi sëriñ Modou Mbaye Ndiaye sëriñ Modou mbay Touba bu ñu leen ci tuddee laawaale na communicateur yëpp waaye alhaaji Ibra Dieng ak sunu wayjur alhaaji Taala ak mboolem mag ñi ñu sëriñ wax ni mi ngi leen di sant di leen gërëm ndax seen taxawaay ci bis bi yëg na ko géntu xam na ko presse bi itam sëriñ bi wax ne mi ngi leen di sant ndax dippi ñetti dippi semaine bi wala ñaari semaine yi noppalu leen fu ci ab rajo nekk wala télévision ña ngi koy jàllale taalibe Sëriñ Tuubaa yi di ko jot jullit yi di ca jot muy yaatu kenn ku ne di mën a ràññee bis bi di ko xàmme ba bis bi mën a agsi fii mu agsi tey fu mu toll tey presse bi jël nañ ci seen wàll te lépp ngeen oyofal ko si ni jàppale ko ci taxawal ko ci sëriñ bi yëg nee na yëg na ko te mi ngi leen ciy sant di leen gërëm di ñaan yàlla barkeelal seenu liggéey ba fépp fu télévision àgg fépp fu communicateur àgg yal na fa yàlla àggali seen matériel yi ak seen jumtuwaay yi barki alxuraanu karim ak xasida yi mu wax ne itam mi ngi sant bu baax di gërëm jàngkati xasaay yi di ay xariti boppam di ay wóllëree boppam te ànd ak moom nga xam ne ku xam si Moustapha xam nga jàngkat yi ba njaal beenam sax ñu bari dañ koo jàppoon jàngkati xasaay yi jàngkat yoy Serigne Moustapha wax na ni mi ngi len di sante mi ngi ci tuddu rek sëñ Ibrahima tuddu mi nga xamne man nañu wax ni moy buntam ci yeen mi ngi len di sante bu baax di len gërëm di ñaan yalla defal len tawfiq ndax yeen bis bi mom seen bis la serigne Moustapha xam na ko yeen xam na ko ganna Gana sere maktar serigne Moustapha neena na yow dula sante sant yow itam yaa ngi sëñ Ibrahima Thioub ak jàngkat yi yeen bis bi seen bis la yéen ko àndan ca njaal ben ga batay te jamono bu ne day gëna rafet ngeen ci ànd ak moom muy mu wax na yal nañ ci ami ngërëmul Sëriñ Tuubaa loolu rek lay ñaan yàlla defal leen di sant njaboote boppam yi ci kër yi muy soxna si di ci jiital soxna maam bu sa Jóob ak mbooleem njaboot yi bu ko tuddee buntu kër yëpp a ci biir muy fa ma nekk man fa keneen nekk fu ne ñëpp a ngi ci biir sëñ wax ne mi ngi leen di sant di sant soxna yaay salam mi nga xamante ne bii ñoom ñëpp mooy seen way jur moo leen teete di sant di gërëm bu baax sëriñ euh, Mouhamadou Mamoun Bousso ci li mu ko may tey may na ko lu ndax ku xam sëñ Mamoun xam wàccuwaayam ci yoon wi xam li ñu ko dénk xam ne dëgg dëgg yoon wi baatinu yoon wi lenn ci baatinu yoon wi lañ ko dénk te loolu ku xam li mu yor xam ko kon bu àndeeg délégation bi mu ànd ñëw def fi temps bi mu fi def ko ne xam na ne jox na simus Fall Ndoye am na fu mu teg simus Saha su woon rek dana doy sëkk waaye la mu jëflanteeg simus Saha ci daara ji loxoom jógu ci si saayir joxu ci ci baatin di ko dimbali ko tey ne di ko jàppale loolu rek doyoon na sëkk waaye taxawaayam bi tey Serigne Ba nga ko sant di sant baax Serigne Mabeye Fall mi nga xam ne kenn la ci njabootu Serigne Mabeye Serigne Mabeye yar ko tërbiye ko toqi ko taxawu ko ba mu mel ni mel tey bis bi di bisam mu indi taraanga yu toll nii ngir darajaal gi ko Serigne Moustapha darajaal mu indi taraanga yu toll noonu ànd ko délégation ban bi mu àndal Serigne wax ne ñu ngi koy sant di ko gërëm Seydina Omar boobu moomu di soog si ku xam si Moustapha di nga xam ne ñoom ñaar benn ànduñu tey ay wóllëre lañ te ak ndaw ba si fii mosuñoo tàqali ko te ku ne xam na ko buntu kër Sëriñ Abdou Salaam Ngom ak buntu kër Sëriñ Mabay day benn ak Sëriñ Moustapha ngay ànd buntu kër bi day benn mu wax ne mi ngi leen di sant di leen gërëm baax a baax di sant bu baax tey gërëm alaaji Sëriñ Bay Baas mi nga xam ne moom itam buy jur la ci Sëriñ Moustapha te yàlla dogal itam Sëriñ Moustapha yaroo ci ay loxoom muy jëwriñ ci kër gi di mu diggante ak si am satu ak njabootam gépp ñu ngi fi di démb ba tey waaye teewu koo takk ndiggam ñëw àndaat ak ñoom ñëw toog jën ma jëmmal jataa bi di taxaw ba jataa bi di ko taaral suñu saa wax ni mi ngi sant bi la gërëm di sant bu baax a baax ah moom Serigne Mamadou Ndiaye mi nga xam ne ci wetu sëñ bi la daa nekk ak boole bokki taal bi di sant si kàr kar yi di sant ñi yor sonorisation bi Serigne Lamine Fall mi nga xam ne ca jaar benn moo ko commencé ba tey Serigne Khadim Diagne ñu ngi ko àndal ñëpp sëriñ Bassirou si la bàyyiwut kenn Serigne wax ni ñu ngi leen di sant di leen gërëm di nuyu bokki taalibe yi di jéggalu ñëpp di ñaan ci doole alxuraan ak xasaay di ak màggu bis bi ak barkib siñ maa bi jéego yi ñu doxee ba ñëw fi yal nañ jéggalu bàkkaar ca ñun ñëpp yal nañ yàlla jéggal bàkkaar yu njëkk yi ak yu mujj yal nañ yàlla jéggal bàkkaar yi ñu xam ak yi ñu xamul yal nañ yàlla jéggal lépp te defal nu tawfeex te may ñu fan bu gudd bu am dëgg Serigne Abdoul Ahmad Niang mi nga xamante ne bii rakk la Serigne Sadiq Niang mu baax ma ku ne xam ko te ñoom ñaar ñuy benn tey mu toog toogaayu seen waajur wa di kilifaam njaboot yëpp ëgsi na léegi mi ngi ca jotaay bi Serigne baa ngi koy sant ni muy sant doom yi soxna yëpp ndax wóllëlee seen safaa la te yàgg nañ lool yu góor yi nga xam ne ay association la ñu ngi sol ay ak i déguisement takk seen digg ne ci liggéey bi sëriñ bi daal wax na ne sant na sant na ñëpp. sant na ñëpp bàyyiwut kenn mi ngi ñaan yal nañ ci amee ngërëmul Sëriñ Tuubaa mi ngi leen di jéggalu di leen tuubal di leen balu àq ndax woote di muy metti metti wuy see ko gën a metti te jamono xat na ndax doomu aadama moom amul lu temps kon li ngeen ko jox seen temps ak seen wërsëg ngir yàlla ak lislaam ak jëmmi Sëriñ Tuubaa bi yëg na ko amul seen pay waaye kalaame na leen Sëriñ Tuubaa mi nga am xam ne am na fay yal na leen defal tawfeex yal nañ ko fekkee at yu bari tamit ci ngërëmul Sëriñ Tuubaa ci saa yi noo baati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 بقروب الوقت وخوفا من إطالة الكلام نحييكم جميعا تحية إسلامية مباركة طيبة من قدوتنا وكلنا الشيخ محمود مصطفى محمد ونقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي في تويب noo ngi leen di nuyu bu baax ngir ragal a guddeel rekk ci waxtu wi ndax waxtu wi jot na ci turu ku tedd ki Cheikh Moustapha Mouhamed Mbacké mu yebal nu fi boole noog jawriñam bay sëñ Mbacké gi ngàcc mi ñuy ñaan suñu borom yàggal ko ci suñu kanam da ko lool bi ni ñëw mi ngi nuy wax na boo ngeen demee na ngeen ma nuyul sëñ Amsatu ngeen ma nuyul sëñ Amsatu bu baax a baax kon noo ngi wax ci kaddu Baye sëñ Mbacke Guèye ak mboolem seexi sëñ Moudou Moussa yi nga xam ne ñoo topp ci gannaaw Cheikh Moussa Mohamed yabal ma ma doon seenus tout tànk su ànd ak ñoom ñu war leen a jotali seen i kaddu dale ci jabatul boppam gi sëñ Mara nga ne ak sëñ Ndiaye gi ak sëñ Moussa gi ñii waaw ci délégation bi Cheikh Moussa Mohamed Baro sëñ Xaadim Gay mi ngi nii toog sëñ Dam Digal ma nga ne sëriñ Mayib Sill ma nga ne sëñ Modou Gueye ëhlan ma nga ne toog sëñ Thierno Kayre it ma nga ne ak sëriñ Mor Ñang hmm? sëñ Xaadim Gay moom laa jiital mi ngi nii yaakaar naa ne ak Serigne Makhtar Sylla mi jiite daayira Xuddaamul Xaddim ak ñeneen ñi ma tuddul ñëpp ak ñaamul yéenay ñëw. sëñ maa beeg yi moom sëñ Amsatu moom la sëñ Amsatu batale jataay kon bokk yi ñëw leen nuyu baax ci turu sëriñ bi Cheikh Moustapha Mohamed Mbacké la ci jiitu mooy mi ngi leen di seereel ne sëñ Moustapha gi mi sëriñ bi sant ndax daanee ci li ko waral te jàng ak jàngale akub jub ak jàngale akub ñetti jiim yu am solo la nekk Serigne Saliou Mbacke moom sëñ Moudou Moustapha ambassadeur mi ñu daan wax sëñ Sall ne ma Moustapha ma ne ko Mbacke mu ne ma sëñ Cheikh toog na moom mu ne ma Saliou yow ak Cheikhouna sëñ Cheikhouna lu damaa bëgg ngeen jàppale ma ci lu jëm ci njàng mi ak njàngale mi ndax man mii day lool li may li may li may def li may war war Lolo, lolo ci jitu waaye ndok bima yalla defale ñu melni yeen ñu man ñu ca bañ dem mëna dem ci geneen wet man ca féete waye Saliou neena mané ko mbacke mu ne maa ngi xamal ne jang ak jangale bo ci nekké bul sentu lu li ma lay bëgg wax mu ne ko lu doon neena mu ne ko na nga xamne yaang ci lila war te nit amut lu gën nek ci wax ko seigne Moussa Baye ba dal loolu wax seigne Cheikh Mbacke seigne sal momako neena jang jangale ku ci nek seigne Cheikh Mbacke neena na la wóor na yaang ci lila te nit amut lu gën nek ci liko wax kon sëriñ bi sant naa la ci li nga nekk muy alquranul karim te mooy li gënaloon sëñ Touba lu ko waaye mos a jox rek mën na koo bañ a laal ba mu des alquran sëñ Touba. Cheikh Moussa moom it mi ngi liggéey it moom la jiital ci léppam daara jàng ne ci niveau ji donge yi bari lool mu di ko saytul boppam jox ko yitte ju kawe am naat moo ko ne fii nga kaamil yi nga jox ma ko ne ma dem ak joxal ma ko sëñ bi jox naa ko addiye kaamil yooyu ba tey ma ngi ci bibliothèque am mu teg loolu kon mi ngi ci sant la ci gërëm. mboolem ñi ko fi teewal itam di délégation bi ci turus Baye Serigne Mbacke it ñëpp ngi lay sant ñu ngi lay gërëm di ànd ak yow ci liggéey bi di la ñaanal itam sa pospos ak sa positif bu kawe la jaras mooy kàddu yi sëñ bi daan sëñ Moussa yi santaane te dina ko wax loo fu ñu jëm weesuwut sax ci jaamu yàlla ak jub moom ñaar yooyu rek moo di mandargam jàmm yàlla ak jub rek bëgg doon tali bi sëñ Tuubaa bu dëggal loolu moom lay dund moom lay doxe fu mu nekkit ci loolu la nekk kon nee na mi ngi koy fàttali ñëpp kenn ku ci nekk daal na nga sax ca loolu kenn ku ne ci noonu it am nga buntu ci sëñ Touba sëñ bi saa ne day digle ne ku ne sa buntu sëñ Touba fexeel ba doon fa dara fexeel bañ ràññi la fa fexeel ba ba ba fës fa loolu mooy li ëpp njëriñ kon nee na loolu tam dénkaane la boo xam ne mi ngi koy dénk ñëpp nee na nañ soppante nañ bëggante nañ wóolante nañu dimbalante taxa ne képp koo xam ne fa nga nekk yaa nga fa gis koo xam ne wóor na leen ne kookee bu waaxoon fekk fa niveau ji dis ko boppam mu dimbali ko nee na kookee boo ko dimbalee na la wóor ne moom moom koy feddali bu baax kon nag sëñ Moussa ñoo ngi lay sant di la gërëm di la kenn du yebe ci yow yoon sëñ Touba kenn du yebe ci yow Daaru Xudus kenn du yebe ci yow lislaam te rek nag moo am mooy taxawaay bu rafet taxawaay bu am solo kon suñu xol seet na ci guy borom xam-xam yi dañoo wax ne mboolem nit ñi yàlla bind ñëpp ñetti xeeti nit la ñetti xeeti nit kuy jaar ci yoon ku yiw nag te bëgg lu baax ñett ñooyu na nga leen xool ba xàmmee leen jëlal ñaar yi te bàyyi kenn ko mu dem kenn ki ci jiitu mooy insaanun kal mooy nit koo xam ne ni ab dund mel noonu la mel dund maanaam lekk ak naan ni mel ni mu amee njariñ nit koo xam ne noonu la amee njariñ ci société nee na kooku foo gis ne ku nekk tey ndax lekk ak naan mënut a ñàkk insaanun kal benn baa ngoog nit koo xam ne lekk ak naan ni mel noonu lañ mel ñaareel mooy insaanu kat dawaat mooy nit koo xam ne dafa taxaw taxawaayu médicament ak garab garab bu naan di ko saafaroo kooku it ne na ndax dana am foo mën a jëfandikoo ndax garab giy faj bopp buy metti ak giy faj xasan ak giy faj wànneen bëgguñu loolu nit ñi di wuutee waaye nag nit koo gis am na ci yooyu ñaare benn nee na tëyal ndax foofi boo dee boo ko faa jariñu daan la fa jariñu wala mu jariñ koo xool ne war nga koo jariñ mooy insaanu kat dawaat beneen bi ngay wàcc nag mooy insaanun kat daa mooy koo xam ne moom léppam tawat la nit koo xam ne posan insaanun kat daa nee na ko suril bàyyi mu dem amul benn njariñ te mooy ki nga xam ne siraatal mustaqim moom fa mu jëm te wet gàcce des la jëm nee na foo gis bàyyi mu dem koo xam ne siraatal ma bu nii fii siraatal mustaqima moo gannaaw kooku mooy insaanun kat daa kooku tookil nee na foo jëm kooku moom bàyyi mu dem yow nag yàlla ñii mu la boole nag man jàpp naa ne sax ci cër bu njëkk boobu lañ bokk mooy insaanun kal ghizaa ñoo xam ne dund ab dund lañ ci doomu aadama yaakaar naa ñii la yàlla booleel ñu wuy si la ci jataay bi ñen kenn ku nekk si ñooñi ci jataay bo ci doxin woowu rek lay dox kon nag noo ngi ñaan suñu borom ci barkeb alxuraan mu defal la ngëneeli alxuraan daara ji tam ku fi mokkal sa borom barkeel ñu mokkal ko sa borom may leen ñu mokkal naw nañ la lool ci sa taxawaay naw nañ lool sa positif yàlla na fan noo ngi ñaan nag ci barkeb ak barke ñii mu yebal nga xam ne moom ay jëwriñam lañ ñoo xam ne kenn ku ne noyyi gum noyyi rek sëñ Moustapha Mouhamed ko moom ku teew ci barab bi suñu borom faj saa ak képp ku amoon yéene ñëw te mënoo ñëw yaa ngi ci biir loolee ñu ñaan bàyyi sëñ Mbàkke gii nag mii ku fi nekkal yàlla na sama borom yàggal ko ci sunu kanam ak bàyyi sëñ Amsatu ak njaboot bi ñëpp bi jaahi Cheikh Moustapha al Karim wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. yoo fi jaaxalatan waxu الحمد لله الذي نبح أهل الشهادة من نوم القفلة والعشيان والصلاة والسلام على من أنقسم من القسران والحرمان وعلى آله وصحبه الفرسان ومن طبحه بإحسان إلى يوم الدين من الإنس والجن أما البحر وحيكم أيها الحاج والعاضلات أحييكم جميعا بتحية من عند الله مباركة على وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونختم بتحيتنا الشاهد الفضيلة الشيخ محمد المنتخب بشير مكي الخليفة الحامل الطائفة المريدية أطال الله بقاءه فينا وجميع أحفاد الشيخ القديم عليه رضوان الله تعالى الباقي القديم ونحيي حيا الصيوخ الذين شمهوهم في حاشي اليوم بسم سليم عمر الله البشر الإمام أطال الله بقاءه يقول الله تعالى في كتاب العزيز ولله المشرق والمغرب فحينما تولوا فضل وجهنا وقال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وحال إبراهيم وحال إمران على الحالمين ذرية بحدها من بحد والله الشميع العليم نقي السلام عليكم warahmatullahi taala wa barakatuhu gannaaw ba nu sant yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi sant seen tuba bu baax ngi ñaanal asiyax Muhammadu muntaha suñu borom gëna a guddal fanam te wéré ay jërëm ba mbolëm naari nga xam yéena na ko liggéey seen tuba lepp mo defé ko ni mu ko soobé té ñu and ko ak moom waye ginnaw lolu tam ñuy ñaanal bu baax kilifa gi nga xam ne fi moom la ñu bàyyi ko tey jii muy Seex Seydina Omar Gom xalifaab Sëriñ Abdou Salaam Gom di ñaan suñu borom gën a guddal aw fanam te wéral ay cëram ba mbooleem li nga xamee ne naan na koo yéene liggéey Sëriñ Abdou Salaam ak Seydina Omar mu defee ko ni mu ko soobee dañu ànd ko ak moom ak mbooleem taalibe yi ginnaaw loolu itam ñu bu baax mbooleem ñi ñu fi fekk ci turu alxaaji sayar gom innu sëriñ abdou salaam gom ak mboolem njabootu sëriñ abdou salaam gom gi ñu àndal jëpp ñuy jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi mboolem kë kë ahlu mbàkke gi nga xam ni fekk nañ leen fi ak ahlu mbusoo bi ñëpp ñu leen di nuyu te di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay waaye li ci jiital it alxaaji sëriñ mbàkke Gueye xalifaab sëriñ Malick Gueye ñu ñaan suñu borom gën a guddal aw fanam te wéral ay cëram ba mbooleem li nga xamee ne naan na ko liggéey sëriñ Malick lépp mu defee ko ni mu ko soobee te ñu ànd ko am moom mboolem taaru bi ginnaaw loolu itam sëriñ bi wax nañu moo gi nuyu bu baax borom ëtt bii nga xam ne ci foofu la ñu nekk tey borom kër gi waaye borom njaboot gii nga xam ne ñi fi liggéey ñëpp njabootu boppam la mooy sëriñ Xamsatu Géey moom sëriñ Mabé Géey ak mboolem njabootu sëriñ Mabé Géey yëpp ak mboolem sët yi waaye itam ñu ñuy mboolem kilifa yi mbàkke mbàkke yi nga xam ne ñoom la ñu àndal te sëriñ bi bu ñu ko tuddee sëriñ Koso Mbàkke moom sëriñ sëriñ Fallou Wasse Dieye ak sëriñ Mourou Mbàkke Mamoun Mbàkke Daaru Salaam yi ak mboolem seex fi nga xam ne bi sëriñ bi jógee ànd na ñoom moom ci bis bi sëriñ bi wax ne mu ngi sant di leen gërëm sëriñ Moustapha sëriñ Sayar mu ngi yëkkat ñu ngi yëkkati kaddu ki turu sëriñ Omar waaye ki digalu sëriñ Sayar mii nga xam ne moo toog tey bopp yoon wi sëriñ bi wax na moo ngi sant bu baax mboolem ñi nga xam ni ñoo teew ci baas bi di sant bu baax itam mboolem ñi nga xam ne ba ñu jàppee bis bi ba tey kenn ku nekk yaa ngi ciy jàpp ci ay xalaat yu rafet ci ay ñaan ak ci saw ñaq li tax nag bu leen di sant bis bi day bisab boppam mu moom ko ci yëpp ci bépp fànn loolee tax na moo ngi sant giite ci cant gi ñoonu waaye di ki tegit sëriñ Moustapha mi nga xam ne dafa yëkkati bis bii dara jaare ko sëriñ Omar Ngom te muy rakkam di jëwriñam ci kër gi di léppam kon kàddu yi du jógee ci sëriñ Omar waaye dafa jógee ci sëriñ Sayar ndax yéene ju kawe kon nag sëriñ Moustapha sëriñ bi wax na ne moo ngi lay sant te di la gërëm di sant mboolem kilifa yi nga xam ne ñu ngi fi di ki jiitali ci sëriñ Mbay Baas mi nga xam ne fekk nañ ko fi waxtaan wi nag dañ koy tënk ki ñetti point bi ki njëkk mooy sillatu rahim ndax gis nañ ko ci àll bi ak taxawaayu bis bi ndax lool képp lay firnde lool képp lay jàppandi tey suñu borom ku ne xam na lemu wax ci ak mbokk ak dagg ak mbokk ak dundal ak mbokk Serigne Moustapha nag moog Serigne Omar ñii ànd ñaari buntu kër yi ñu bokk mbokk gi am seen diggante mooy bokkub diine ak bokkub deret ak bokkub islaam dara yàquwut ci ñoom. te Serigne Moustapha it moo ngi koy yokkaat niki lii tey kon nag nañu maase ànd xel am xel mu dal ci ne Serigne Mabé fa mu nekk ak Serigne Abdou Salam ak Serigne Naoumar fa ñu nekk kenn ku nekk sam xel dal na te am nga kontaante bu rëy ci bis bii ndax na képp koo xam ne fekk nga maam ya fa ñu nekk fa ñu nekkoon nga fekk leen fa wax leen lii tey maanaam dañu nekk loo xam ne dañ naan fa ñu bàyyi woon seen waar am na ñu jëlaat gopp yi ëpp seen yooyu di fa bay te loolee moom la sëriñ Moustapha def nii tey silatu rahim gi nag loolu moo ko waral te suñ borom dafa wax ne ak mbokk ku ko dagg ma dagg la waaye ku ko jot it dana la jot béykat toppaat itam mooy almuraatu bil ahdi moo di sàmm kóllëre sàmm kóllëre googu nag ku ne xam na ne diggante bi sëriñ Moustapha bay na ci jéego bu am solo waaye lépp itam daf koo jëlee ci kilifaam gu baax gi mooy sëriñ Amsatu nga xam ne ku ko xam. ci lu baax nga ko xam ci defare nga ko xam ci ligganti doomu aada yi nga nga ko xam almuraatu bil ahdi googu nag wa awfoo bil ahd inna al ahda kaana masoola masoola googu nag buñ masooliya boobu nga xam ne aju na ki suñu kaw mooy buntu kër Serigne Mabeye géey ak buntu kër Serigne Abdou Salaam nga xam ne ëllëg dinañ taxaw ca kaw kanam kilifa ñu laajaat ñu loolee nañ lañ ko sàmme woon tey ku gis lii sam xel dana ki dal nga xam ne buñ dagee ca kanam kilifa ya dañu ñu rus loolee nag dafa doon kóllëre goo xam ne dafa yàgg dafa commencé ci sëriñ Ahmadou Ndaara Gueye ak Seydina Omar Gom ndax ku ne xam na ne sëriñ Ahmadou Ndaara Gueye ak Seydina Omar Gom am na kóllëre gu doxoon seen diggante kóllëre goo xam ne lañ ke bay ku ne xam na ne moo tax li taxaw tey jii lépp taxaw ndax ku dem ngaaj xam ne la fa nekk liggéeyub sëriñ Touba la ngërëmal sëriñ Touba la waaye ngërëmal itam nit ñu baax lañ ku dem Daaru Salaam gee itam xam na la fa nekk lool képp fa nekk te Seydina Omar it am na ki am na baat boo xam ne mas na koo seede jëmale ko ci sëriñ Ahmadou Ndaar te loolee su ma waxee lii ma bëgg a wax ñoo xam ne ka wax wax joojee waxewu ko bakkanam mooy dafa mas wax ne sëriñ Ahmadou Ndaar de wàlliyu la wàlliyu woowee nag muy wax ki sëriñ Ahmadou Ndaar bu toppoon sëriñ Touba bu bu fekkoon ne sëriñ Omar seedewu ko ci moom te sëriñ Ahmadou Ndaar topp sëriñ Touba ba am gërëmal Serigne Touba itam orienté waat ko ci borom Daarul Muxti mu jaaraat ci ba am gërëmal ndax nag li tax ma wax loolu mboolem man ñi nga xam ne am nañ gërëmal sëriñ Touba ñëpp néewaana kenn koo xam ne dem na ci moom te jaarul ci borom Daarul Muxti lu ma demul nag waaye bëriwul kon nag loolu guddalu waxtaan bi rek ak leeral li ma bëgga leeral moo tax loolu ndax li tax ma xam ne waxewu ko ba kanam moom Seydina Omar moomu mbas naa jógee fii di dem gànnaar yàlla suñu borom dogal mu dajee ak benn bu ñuy wax mbay faal naar bi nag ku ne xam na ku ne xam na am naar ressource gi ci ne ressource gi nekk ci moom ak it bu nekkee dëkkam taxawaay bam fay amee maanaam mu wax ne maami kee toog muy sëriñ euh, Mapaati Silla la sëriñ bi àndaloon ki nga xam ne moo àndoon nag sëriñ Mapaati Silla la naar bi wax ne ko waxal kii ngeen àndal mu mooy yàlla doonte seen saala maanaam biñ ko ko eggee mu yendoo mer ba jant bi so ñu wax ko naar bi ne ko da ngay tuubal kooku da da koy tuubal bi mu ñëw bi bi ñëwee ne ko siñ bi baal ma àq daf koo cay tegal ne ko mooy yàlla seen saa dagg sama baat bi moo ko gënal koo xam ne nag mooy yàlla sa kàddu mooy yàlla ki sa jëmm mooy yàlla ki sa lépp dagg sa baat la ko gënal kon jàpp naa ne doo seedeel nit loo xamante ne ni bakkan képp a tax nga di ko ko seddee te loolee mu seedeeloon sëriñ Ahmadou Ndaara dafa nekk loo xam ne lu wér la lu dëggu la bokk na ke lam ca waxoon ci moom it bu bu bu bis baa bu àpp ba jotee bu ndawal sëriñ bi ñëw na ma sëriñ Ahmadou Ndaara taxaw loolee koo doyloo doo ko ko def tey la waral loolu mooy kóllëre gën a bokk sëriñ Touba moo ko waral ndax nag mag ñi bi nga xamee ne dem nañ ci sëriñ Touba ba sëriñ Touba gërëm leen dañoo jëlaat seen lépp kuñ gis ci seen borom seen morom ñu xoole ko ñu sa bopp di gëm di di delloowaat seen gëm sëriñ Touba ci seen morom mooy li sëriñ Touba wax ne wàcc xali misrika ka nafsika sawa li wàcc xaalixin ala warsi stawa ba sëriñ bi waxaat na ne saxaaba yi ñooy seen bàyyi ki diine te lam toqe woon mag ñi mooy wakkat safoo di jonnatal xaafaaxi bil xilmi wal xamali war yu faax yu faax googe nag nga xam ne am na ci diggante Seydina Omar ak Serigne Ahmadou Ndaara moo waral tey jii bis bi tey waaye itam li li ma xam ne dinaa ko ci dolli mooy oxuwatu bil xiraat mooy loolu nga xam ne yàlla suñu borom dafa dogal Serigne yi ak Serigne Abdou Salaam itam dundoon loolu Serigne Mabey dundal buntu kër boobu ci liggéeyu Serigne Touba ba nga xamee tey njabootuk sëriñ Mabéye ak njabootuk sëriñ Abdou Salaam ni ñoo ànd ci Bawal néewaa na nga gis dugg ci buntu kër fekk buntu kër yi ànde noonu te loolee mag ñi rek ñoo ñoo ñoo liggéey loolu kon li nga xam ne sëriñ Moustapha def na ko muy jëf joo xam ne mbooleem njabootuk sëriñ Abdou Salaam boo ko jëfal sëriñ Sidi rek bu ñu fa jógee démb dafa wax ne na ngeen xam ne na ngeen wax sëriñ Amsatu bu ngeen demee nee leen ko leen sëriñ Moustapha def defalu ko sëriñ Omar defalu ko sëriñ Sayar waaye mbooleem man ñii ak njabootuk sëriñ Abdou Salaam ba mu jëpp la ko kon nag sëriñ Moustapha yoon waa ngi noonu da ngay jéem a continuer fi nga nekk te nga xam ne fi nga teg sa tànk foofu képp la loolee nga xam ne moom la alquran waxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko fa isaa farta fansab wa ila rabbika farxab lu jeex rek tekke la neen te lu koy looy def rek na samaam tax wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu bokk nag te léppi rafetinu doxin aw dëkki nag ak bopp dox seen diggante mooy fii ma taxaw baasub sëñ Moustapha gi bii moom sëñ am satu moom soxna Jula Badiane moom sëñ am satu moom sëñ maa bi fa tabaarakallaahu xaju fi sax waaye ñu junj ci loolu rek waaye ki nga xam ne nag moom ma fi yónni nii di sëriñ maa bi Fall di koo xam ne ànd naag ay bokkam ak njabootam ay xaritam sëriñ maa bi moomu nag bala may lim délégation wax leen tuuti ci moom mbooleem li li yaakaar sëriñ Mame Beye am na ci lu ci kenn amul sëriñ Taw Fall mii may waxal mbooleem li yaakaar sëriñ Mame Beye am na ci lu ci kenn amul du ngeen mën la ñaar fukki at ngay fanaan ak sëriñ Mame Beye ci benn néeg amul kenn koo xam ne man nga ne man mii am naa fa fukki at wala am naa fa juróomi at sëriñ Mame Beye Fall moomu sëriñ Mame Beye da koo fawoon tudde ko boppam mu gàmmu si fa ne bàyyi dutuma ñibbi bàyyam ne ko loolu ma gënal sëñ Mabéye téye ko lépp fekk nu fa mu ànd ak mu nekk ak sëñ Mabéye nangul ko bëgg ko sëñ Mabéye dem ba ne sëñ da ci man yërmande ñor di ko dugal néegam mu bàyyi daara ja bu jógee buy dem mu yor del beeg satala gi su guddee mu ne ko taalal ngàññ mi soo amee dem ko yónni yónni ko ko su dem Ndakaaru ànd ak moom bu dem Bambey ànd ak moom fu mu jëm fu ko ñor fu ne ànd ak Serigne Fall ba mu jula bi mu demee ba mag dab ko mu jubal boromam doom ak soxna ku muy waxal danaa Serigne Fall Serigne Fall ku mu teg loo xam ne la ana Serigne Fall loolu nag cër la boo xam ne yàlla ko ko jox bi mu juddoo bàyyam tudde ko Serigne Mabéye mu gàmmu ji ne bàyyi dootuma ñibbi dama def sama turandoo turandoom nungul ko ko bàyyam nungul ko ko mu nekk ak turandoom nekkin wu rafet moo ko may sëñ Moustapha mii ci déggal sëñ Amsa Doog sëriñ Mbàkke ne sëriñ Tawa Fall la ñuy dara jaare bis kon sëriñ jox nañ la lu solo xam ne sëñ Mbàkke bi bég na ci sëñ Mbàkke gi bég na ci sëñ Amsa du bég na ci sëñ Jax Mbàkke gi bég na ci ñii nga xam ne ñoo di doomam it dimbal sëñ Mbàkke taab sëñ Mbàkke gi rakkam ak sëñ Mbàkke taab sëñ Amsa Doog gi rakkam ba ci sëñ Amadou ñoom ñëpp bég nañ ci kontaan nañ ci kon ñoo ngi ci kër goo xam ne doo fi gan ñoo ngi ci kër goo xam ne def nga ko ñoo ngi ci kër goo xam ne tekk nga ay médailles ay garaat ay ndombo sëñ ba bi tekkal la raw yaa ngi ànd ak ku ñuy wax sëñ Iliman Fall sëñ Modou Fall bàyyam ak sëñ Mabé seen ñaari waajur yi bokk ndey ak baay muy baay ci gone yi di rek sëñ Mbàkke sëñ am tëdd ak alaji sëñ alaji alaji sëñ Nger ak Ibrahima Fall Baye Fall sa doom Ibrahima Fall Baye Fall ak Serigne Maka Fall Sadikh Murid ak Babou Fall ak Modou Fall sa doom Modou Modou Fall Serigne ak Khadim Fall Serigne Fall ak Serigne Fall moom àlla ñu seen gom ñu ak ñeneen ak ñeneen damaa yor kay yu bindu ma damaa ñi ma xam. waaye ak man mii ak ñi toog ci baas bi alaji bay baas alaji taala alaji bay jënd ñun ñëpp noonu seen def foo jëm naa ak yow jaral nga nu ko toll nga noonu ci moom na nag nee na mu ngi sant yàlla bu baax di gërëm sëñ maa bi di yeesal taalibeem xam ne mu ngi doon àndoon naa ku ma sa ndax moom xamal na boppam ne sëñ maa ko rob la ko wóob loolu it na ñu bari ko xam kon sëriñ nee sëñ Moustapha yaag say ma sëñ Moustapha yaag say baay sëñ Moustapha yaag say xarit sëñ Ba ne aw ma seen ndax ma sëñ bi rek laa yaakaar àddina ak àllaaxira fu ma dem dama wala ma dox fee samay soxla waaye sëñ bi rek fi laa nekk kon boo fa yee bisum sëñ bi bii dara jaarama ko gindi sëñ bi nee na mu ngi ñaan ku fi teew yàlla faj sa aajo foo say bakkaar defal la jàmm yi àddina ak jàmm àllaaxira ci barke sëñ bi loolu mu boolee nag euh, ak ak addiyam ji dafa doon bëgg a tudd waaye lu mat a tudd ndax lim na mu ne moom bu fi defee bu tàmbaloon bés bi ba bés bi jeex defut yéeneem ndax lu war ci kër sëñ Babé moom bu mënoon ma amoon man manam moo koy tàmbali moo koy yeggale waaye nag addiyaam ji ma dem lim mu ne ma bëgg a tudd te ma dem lim waaye nee na damaa war a sax ma ne war a yeggale addi la ji mu joxe sëñ Moussa Ba sëñ Ba ànd ak ñi mu ngi sant mu ngi gërëm di ñaan ko fi teew yàlla fi saa yu asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu alaaji sëriñ Faye moom sëriñ Maam Benda Faye moom Baye Seck Gaye Ndiaye moo yónni man alaaji Basirou Bey moom sëriñ Moustapha May Mbacké ci bis bu ci alaaji Mbàkke Gueye ak njabootam te sëñ am alaaji am satu nekk ca bopp ba nee na nag mi ngi ubbee kàddum ci yasir lana jami ama yanfahuna wa kufana jami ama yadduruna yasir lana jami ama xaddasura faddalal wa jumlatal waraali saqira barke xaadimu rasul barke maam Cheikh Ibrahima Fall ci kilifteefu Serigne Fallou Fall Cheikh alaaji Serigne Faye nee na mi ngi nuyu ci kaddu njobootu Baye Seck Gaye Ndiaye gépp te góor gi sëriñ Mor Badiane nekkan ca bopp ba ak Serigne Maa Mbenda Fay kilifa yooyu nekkan ca bopp te mu nekkal leen tey fii ci kaw suuf ànd ak rakkam ànd na naga ak forte délégation boo xam ne moom la àndal ñu njobootu Baye Seck Gaye ñëw fii ci sëtu Baye Seck Gaye bii ak sëriñ Mabé Guèye ànd na ak ku wax sëriñ Ibrahima Faye di rakkam ànd naa jarbaatam di kilifa ci yoon wi sëriñ Ndonga Fall Ndong Cargaan ànd na ak sëriñ Muudu Faye di mbokk di xarit waaye ànd na ak sëriñ Yaaram Mbay jàngkatu xasaayid ànd na ak Mbaar Badiane ànd na it ak soxna ma ajaratu say Samb ànd na it ak soxna Ndey Sey ak soxna Ndey Fay ànd nañ ak soxna Ndey Seen ànd nañ ak soxna Xadijatu Caam jóge fii ci Touba ak man mii di wax ak yéen ànd nañu ñëw di santaat yàlla di julli ci yonent bi di santaat nag Sëriñ Mbàkke bu baax te di ko ñaanal mu yàgg ci sunu kanam di sant Sëriñ Amsatu mii rakkam di taalibeem ndax ñii nga xam ne alaaji Sëriñ Fay mooy seen nijaay ci wàllu bopp waaye ñu di ay ay taalibe yu ma ci taalibe ñooñu ko def nii ñu mel mi ngi leen di ñaanal dund ak nooyeen nga ko ko bindoon jógu te tey la ko gën a man yal na li ci yàlla tibbal lu ñu liggéey la borom daaru xuddoos te suñu geesoo yam ci ñoom sant nañu leen gërëm nañu leen muy fàttaliku nag it koo xam ne tuddal nañu ko léegi ci bis bi muy Alaaji Sëriñ Fall ndax saa yi daaw kàddu famille gi yëpp moom lañ ko joxoon ndax kilifa di seen mag mu faabaat ko joxalee ci Serigne Faye te yàlla tax mu tëdd fii ci Touba yal na yàlla dolli koy leer bu ñuy ñaanaan defal ko Fatiha ak fukki li Fatiha ak fukki lixlaas ak benn julli ci yonent bi defal ko Allah ci Serigne Fall ak mboolem jullit bu nekk ci biir suuf ci barke Baye Seck Gaye Ndiaye dane ab liir mënut a war su yàggee ci ginnaaw rek mbootu moo ko téye waaye nii jarbaatam bi mel ak ak i rakkam ak i bokkam mi ngi wax sëñ maa bey mii toog seen mag nga waxal leen sang ya ne leen na nañu ci xam nañ ne nu ñu mel nekkan ci liggéey bu baax ndax lu nit di baax baax ku baax yor la nga nekk ñu baax da koy gën a baax allah ji sëriñ ne mi ngi leen di sant di leen gërëm ci jëf ju rafet ji ngeen def taxawu ko mbooleem ko fi ñëw mi ngi lay sant ci nii ngeen def sëriñ Moustapha gis na ko ndax géej yaatu na kat waaye tefes goo ci fëgg rek. géej ga xam ne ne ñëw nga ca tefes ga kon ñu ngi leen di ñaanal ci barke Baye Seck Gaye Ndiaye mi mu leen tawféexu laari bi jaay rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam kàddu jarul muy gudd di sant Serigne Talla Dieng ak Serigne Ibrahima Ndiaye Dieng ak ki nga xam ne mooy Serigne Mbaye Dieng yàlla doole leen taw laari bi jaay rasulullahi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu da dunu tiital nun waa Daaru Musti yësir lawu mbii lasi tasara ko kullu may soto tasara jërë ngeen jëf mi nga xam ne moo bis bi tey sëriñ baa ngi nuyoo ko ci kilifa yu baax yi nga bal mën nakati ñoo nank duma ko joxe de bu soobee yàlla ñu bàyyi sëriñ Mbacke Guèye da wax na laaj di ko ñaanal yàlla sunu borom ko te wéral ko yàggal njaboot gi ci ginnaawam ñu jaarale nuyoo boobu ci jëwrinam alxaaji Xamsatu Gey di ko ñaanal yàlla ak yàgg ak wér moom mi nga xam ne mooy buntam mu ci jaarale nuyoo bi noonu lay jàlle ci Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Mbacké Mouhamad mi nga xam ne mooy kilifa gàtt mi jàll ci ay kilifaam Cheikh Abdourahmane ak jàll ci Cheikh Mouhamadou Moustapha Serigne Moustapha nee na ngi leen di nuyu mi ngi leen di siyaar mi ngi yeesalaat ak njëbbalam di feddliwaat ak taalibeem ci wasila mu baax wi way juróom baax wi di Alaaji Xamsatu di nuyu ñi mbokk yëpp jataay bi mën nañu koo tàmbalee ci sëriñ ma bi moom alxaji Xamsatu mi nga xam ne moo fi toog seenu jataay sëriñ ma bi noo ngi nuyu di ziyaar di la ñaanal sant ci taxawaay bi ak ci woyef bi ak laabir bi ak jotal bi sëriñ Moustapha ne ci yow lay jaarale nuyoo gan yu baax yi nga xam ne ñoo ñëw fekk si ko ci jataay bi tey tàmbalee ko ci sëriñ Mouhamadul Mamoun Bousso mi nga xam ne moo nekk imaam yi jumaay Touba kenn ku nekk xam digganteem ak Cheikh Mouhamadul Moustapha ci ak wëllëre ci ak xaritoo ci ak jàppante sëñ Moustapha nee na ngi koy sant bu baax ndax bis bii bu ko ci boolee jox ko ci benn cër Serigne Moustapha nee na dolliwul dara ci fonkeel gi mu ko fonk dolliwul dara ci jàpp gi mu ko jàpp ndax jàpp na ko bu yàgg waaye lii lim ciy wone mooy firndeel rek ne nit bu la bëggee da nga koy sàkkalu lay te cëru bëgg yëg Serigne Moustapha nee na loolu moo tax waye xamna na ak ñàkk jotam xamna taxawayam kenn waru ko déplacer sax ndax lim féetewoo sëriñ Moustapha it nee mi ngi nuyu wa kër serigne Abdou salam Gom di len sante bu baax di len jaajeufal serigne sayidina Omar bi nga xamne mom la serigne bi dara jale bis bi di diggante bu yàgg waaye lépp rafet ndax dañoo bokk ab jubluwaay te kullu xisbin bi ma ladayhim farixuun nit bu fekkee ne bokkoo leen foo leen jëm mënoo leen a ànd waaye danoo bokk ab jëmu te jëmmu bi di kenn muy Serigne Touba loolu moo tax sëriñ mu Moustapha jëlaat bis bi jëmale ko ci ñoom ak mboolem ñi fi teew ci wet gu nekk bàyyi ko fu nekk di nuyu jëwriñu kër gi di sëriñ Mbay Baas mi nga xam ne sëñ Modou Mbay Njaay wax na ko léegi tey jii bi ñuy joxe fii kaamili al bi ñuy joxe fii ay cadeau ci dongo yoo xam ne dañoo mokkal alxuraan ñu jël daraja jooju jox ko alaaji Mbay Baas mu jottali ko loolu li muy tegtale mooy moom lim doon ñaan te doon ko samp te doon ko suuxat yàlla jebbil na ko mooy tey jii làmp bi takke woon ci ëtt ba ñëw na fii nekk làmp boo xam ne taal yeneen i yeneen i loolu it nekk ndam boo gisee Serigne Moustapha tey jii ñu daje mu ne bala ñoo def dara na alquran di jitu xam ngeen ne cérémonie yi fi jàll kay mi li alquran ñuy joxe tay ji ñu andi ndongo yu mokal tay jigen nek ci te xam ngeen li ci mokal alquran ndax yonente bi ali salatu wassalam bi suñu borom di wañi wacc ci mom alquran la wax inna sanulqi alayka xawlan thaqila kon nekul lu wayef borom bi subhanahu wa taala neena لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع متصدع من قشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس جمي القرآن الكريم بنكو تيغون تيكاو أو دوت دنو روي كون كيمانا بوالي غوني ديكو تاقنتال اك ديكو لجنتي بام موكل القرآن لولو أبي تيم اك تخواي بريلا لولو ورالتاي دونغي تامبلي في مونيني سن مصطفى ويدتو la Cheikh Moustapha waxoon mu mag ma sëñ Touba la sëñ Moustapha di wone waat du Modou Moustapha dafa waxoon sëñ Touba na ko la nga ma bawoon ca laa ne tey jii sëñ Modou sëñ Moustapha loolu la wone leneen lum mu woon lu dul lii dana am ñu ko naw waaye dana am ñu ko du naw waaye tey kenn mënu koo xeeb ndax liñ ko bàyyi woon ci la nekk mooy fexe ba jël ay gone def ci ñoom alxuraanul karim te waxuma gis nga jumaa ji li muy rëy rëy ak jeneen jumaa li muy rëy rëy mbaar mi ni jàngale alxuraan a ko gënal yàlla وما في الأرض من بقعة لدى المساجد أحب إلى الله من بقعة يتلى فيها الكتاب صلى الله عليه وسلم بري بني جانغ القران مار مني جانغ القران مو گنال يالا باكي تي كاسو دون كوني جاكاي لا تا نداو ني نتي دارا جي دي مونو مونو مي يالا سا يو مري بڬ توكل ادنا ñaar lay deglu نود كات يي اگوني يي جانغ تي صلى الله عليه وسلم ني في المكاتب شفعاء الكبار ذوي المعايير ndaw ñi ne ci daara yi tey jàng ñooy ramm mag ñu saggani kon bari na tey ku amu xetiliku te daara jooy romb a ko waral nga xetiliku Serigne tubaa nag moo waxoon ne sama gémmiñ mooy ñàkk dëkk tuubaa di jàngale alxuraan kon ku dëkk tuubaa di jàngale alxuraan yaa ngi def li Serigne Touba bëggoon te yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na xayrukum man taallama alqur'ana wa allama ki gën ci yéen mooy ki jàngale alxuraan jàng ko ba noppi di ko jàngale tay ji lolo to seigne Moustapha bisam mënu koo delloo lu mooy ña ko moom te yàlla yi kese tax mu diko def naw ci ñiko def taxaway bi te ndigal tax ak melow wi ñim japp ñep seigne touba la leen japp melow wi mu nekk moy ndigal lolo waral tay. tarim alquran mi jitu ñu wane na ci lolo la nekkon seigne Moustapha amutug jot sëñ Moustapha taxawaaluwut sëñ Moustapha wut sëñ Moustapha dóor sëñ Moustapha porosiw ñëw naa fii bii ci guddi ñëw indi sama addi ma ne ko sëñ Moustapha li gën a jafe mooy kenn yebu la man mii di sa xarit sës ci yow mënuma laa yëpp ci biir mënuma laa yëpp ci bitti te jamono mënoon naa soppiku ndax bu ma du amuti milliards it am na ay kon ku ma respecté loo wone la te mënuma laa yëpp lu toll ni deedeewe du ci biir du ci bitti ndax sa jikko ak sa melo lu waay soxor soxor lu waay bon bon lu waay iñaan iñaan nangu ne sëñ Moustapha moo baax te man mi ko wax placé naa ci wax ko nag ndax xam nga waxuma ko ngir mi dama jox te lu mu am yéene naa ko ndax lu ma mel neex na sëñ Moustapha kenn bokkut ak moom yàpp ko waxoon naa leen ne sëñ Moustapha du jëwi bokkam te du leen xas sëñ Moustapha du xeebi bokkam sëñ Moustapha saa yoo ko séenee muy dem lay jëkkal aw doxiinam mooy bokkam yi koy gunge ay rakkam ay ànd ak moom ay doomi baayam ay ànd ak moom ay magam lay lay fekki wala ñu du ko fekk waxtu wu nekk kenn koo ci wéetal balaa wax ci moom ay rongoñu may jëkk a tuuru loolu jikko ju rafete ko war sëriñ Moustapha Touba dëkk bu naqaree nekke la ñi gën a doy waar fi lañ dëkk ñu du dem te bëgguñu ko dem ak a gàllankoore waaye yoon wiñ lay kar mosoo leen faa fekk ndax la ñuy nekk da nga caa nekkul gis nga dóor ak caaxaan ak ma mayewu dara ndax naxe dafa yëggut bi nga ko tàmbalee biñ la xamee bi la gaa yi trouvé génn ci yow boo nekkoon ci pexe wala yori bagage tas na bu yàgg mënoo koo wax man maa koy wax te placé naa ci wax ko na ndax yàlla rek a tax ma di ko wax Cheikh Moustapha as la sëñ Moustapha ñàkk na wata jox baayam wata wax naa ko fi démb na ko bala ngaa mënoon a xam li ngay jëf ñëpp wala ginnaaw ñëpp boycotté kenn bañ a nag kenn bañ a andi gëléem kenn bañ a andi xar seex sab socc na dama bëgg a reetaan Sëñ Moustapha kon ci ngay xam ne ngërëmul yàlla du caaxaan gis nga jekk gis nga ngërëmul yàlla ak jak ak barki bokkul ngërëmul yàlla du caaxaan Sëñ Moustapha ngërëmul yàlla la loolu fekkiwuma ko mu ngi koy xaay man xam naa ci dara te wax naa leen ne ku ma ko gën a xam bëriwul موم شيخ مصطفى با تا توب سيغ مصطفى لي گنا جافي سي ادونا موي اكيليبري موي شريعه دولا جام حقيقه دولا جام من داي بما لا خامي با ليك مسوما لا ديغ ولا ما گيس لا سي لن لو دي خيب تا با تا توب نيت كو nit ku ne yow jikkoom nga àndeek moom nit ku ne jikkoom nga àndeek moom doo jàmbu doo dikkile iñaan moom xamoo li gën a andi problème nit ñi muy iñaan moom yàlla dalaa la yow yow li ñuy wax problème mu iñaan da xamul ndax iñaan lim dul jariñ yoon sëñ Tuubaa da ne idil xasuud laysa santifaa bi fadli man xaasara bi tibaa gis nga boo iñaanee ko jamanontel wara jari jariñoo moom du jari dañ dan jaar fi seen neegi ñax yi nan su dekk fi di jaar sang sal goof mi nit ñi bëgg dara mu jafé nga ris gor rek xaxam bi wër la wet gune xif bi wër la wet gune tawte gi wër la wet gune jamono mëna neex ci ñune jasi neer xewta do ko am aw dal rafet do ko mën sol nga muñ na ci jang rek di tak da ak nekk ak dong dund ak ñoom ba tay lepp kon bu la neexee bakku bu la neexee damu nag ndam la ñiy bëree sax buñ daanee danañ ne cur ku daanul moo sëñ te bakku lii nga def doyoon na ndam fexe ba nit mokkal alxuraan doy na say way jur ngërëm la doy na loo am fàtte sa bopp jox say way jur doy na di am nii nekk niser loo am bëggoo cëb cër mosoo bëgg a war wata bu baax bu rafet sa way jur waru ko ala ji am soto la gën wata bu muy warte yaa ko koy jox xam naa ci dara barki démb sama oto la yóbbu ngàcc te mënoo koo ñàkk te man yor naa ci ñaar te joxuma ko kenn dama lank bu ma bëgg a war war yow boo yor joxe daaw bi ma demee Makka bisu guddi gi nga xam ne dama jóge dama dem Jamra dama jóge a ñëw ci guddi gi def sama tawaaf darñeel bi may mujj sëñ Moustapha laa mujj tudd ñaanal na ko géey dama dégg ñu ne fii koo fi woo loo ko ñaan la dana ma woo ko moom jot ko téléphone bi ma nekkee ci alburujul alam ma jot suñ Moussa Kero dama kon bu amee nisër ne moom du dem makkaay juróom lay yóbbu mooy ngëneel sëñ Moustapha la simplicité est un art xugu cagg cagg yaa rien fees sa place ba noppi dal nit ñi sëñ Tuubaa moom مولن و والله ينصرني والخلق تتبعني في البر والبحر ذا نفق بلا درر كان من نون سيدي ابراهيم لا نياكار شيخ ابن فاتي بروم دارو موختي تي سيغ توبا نانا وون فيتو تيرنو دا راغات با تي دومي اك دونغاي موتو دون تيت لولو شيخ القديم moko waxon ak cheikh ibrahim borom darul mukti waye ya gore ni fi wax man nañu tanade di tatone ndax la nga len won me man luma mosoo jàmbat mosoo saalit mosoo ñénki mosoo ne ma sawaay nañ ma raggal ndax dëkk bi jafe na mosoo ne ma amoo xarit bu ma lebal mosoo ne ma nañ ma dimbale barke xaadimu rasul mosoo maa woo téléphone na ma jaaxle naa sawaay ay bagage sama jàpp wala nangam lu ñaaw ku la koy wax doo ko dégg lu ñuy wax ci nit bëgg koo jëw dangay ngay reere tapp ko daan na ah sawaay ëpp naa def lu rafet da ngay dégg moo la may sa jàmm ji na moo tax kaye bu yéene la li nga mel man bay am su géy bi yag nañ fi ta moma waxon ci yow lima ma wax japp ko li ci dess dama wax bu ko wax dat bam ma wax ñewugul yalla yeex señu mustafa dafa tawat bobu mi ngi fi ci mat yalla tawat ju metti ñu indi ndamat ma ñëw ko musul mbassin bu marron lay doora ñew ci dekk bi ma togo ak bay ñuy reer bobu mbaxal lañ doon lek ma jooy na ko sëñ bi sëñ Moustapha dana faatu ndax kee ma tiim moom mën a tuta dund sëñ bi na dënn yëlëb loxo bi ci ndab li baagum naa déedéet gànna nag maanaam mu ne ma li ma bëgg ma koy defal barki ci benn hôtel ci bitim réew ñuy waxtaan yu baax yi ku lay tudd nit ba yàgg am ku jekki-jekki ne man de sëñ am ne ko man a man miinu ma sëñ am sut bàyyi laa xam ma ne ko man jàpp ne meneen sëñ am sutoo ma ne ko moo wax yow sëñ am sutoo mu ne sëñ am sutu Gueye ma ne ko loo ci wax mu ne ma dama fee am tànk buy metti dana ma dégg góom boo xam ne nee na waxuma li ciy génne ni mel doy na waar te xaw ma lu ma ko teg nee na ma ma dugg ak bàyyi ci oto bi na ko man de sama tànk bi day metti mu ne ma yoroo foofu ñaar fukk ne ma yëkkati junni jox mu ne ma déedéet ñaar fukk doy na ma ne ko sama tànk bi lu ma ci waay laaj jaral na ma nee lama bay wax lama def dama xey suba nee na néew ma naan tànk bi da bënd ndax da neew won néew ma ne fi la gombi melon dama yewu sap tank mel na melon momako net li barki démb ci hôtel Bafora kon xamna ma xam ko bu baxa bax ha ah nak gis nga jamono bi nit ñi dañu amatuut ku leen mëna nax te señ Tuubaa neena won jamono ngi ñew ñett dana fi jëlee ñett ñett wutuko jamono ngi ñew xaalis na fi jële iman sëñ Moustapha bari na ñooñ mënuñoo ñaan yàlla mu nangu te ñàkk iman a ko waral nit mënta boole nit di sàcc di la jox ak di may yàlla di la jox ak di fen di la jox ngay lekk naan yàlla indi day lang rasulullah yee ko wax ta laa rajulun yarfau yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi ya rabbi wa matamuhu haram wa malbasu haram wa guddiya bil aram fa anna yustajabu la te kooku wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa waxyun yuha sallallahu alayhi wa sallam nit bu lekkee lu lu da lu aram ñaan yàlla ijaaba yumb ku am xam nga ku xam nga woote say bokk ñëw woote say xarit ñëw say dëkkandoo ñëw ñu am na koo bokkulub tarixa yaakaarul jébbalul ci yow bu jëlee da jox la ko wan a leer kon nax ren bu desee du ñëw loolu leer na sëñ bi xam ngeen li ma leen wax kon iman xaalis dana ko fi jël xaalis tax na nit fàtte la mu waroon a wax xaalis tax na nit fàtte la mu waroon a doon xaalis tax na nit jaay ngorom jaay diineem sëñ Tuubaa nag xaalis dana fi jële iman islam nag tubaab bi dana ko fi jële islam tubaab bi dana ko fi jële jamono bii danga séen koo xam ne boppam la ca ne ci numéro mémoire am lam ci aristéré ci groupe mën na xasida da xamul benn araf dañuy tudde big hat ci anglais big hat mooy bopp bu rëy rek nga yor ko ba noppi te dara niwu ci te yaa ngi fanaan ci connecté ak envoyé ak rejeté ak demande ak lu ne te sa diine zéro setanum télé man na tax do julli jamu yalla ko nek man na tax do jamu yalla khalis amul deret namput mew du jam du gor amul juddu khalis tu dara jef kon islam dana fi jele lol magal gi man nga fe yenn do julli tisbaar do julli takusan do julli timis waye bu sa telephone fayé nga do fune ngay wor roofal ma fii tey xaw ma lu ma connexion bi neexul tuba baa ngoog lislaam a ngoog ihsaan dana ko fi jele moy problème bi Cheikh Moustapha bari na ko khalis xaalis dawiyee tubaab bi ni teg ci bu kep ko video yaa ngi fi na fang leer nañ bari na ku ne mut ak waxal nit la tax muy wax suñu ko baña wax tax fañ ko jàpp tax bari na ku mucc ci yar ye te muccul ci bi bari na koy waxal nit fañ ko jàpp tax muy wax yoonu kenn mën na ca baña ne nak ba diko lijeenti waye lu fi ne nit ñi xamees na bu boba nak sëñ Tuubaa ne na duutoo dégg mukk nawetu ren dak daw daaw duutoo gis dom ju gën baayam duutoo gis rak ju gën magam ngi mënta wax ci mom dara sero fot kon geng ngàcce gala xam nga legi legi nit ñi sëñ Modou sëñ mustafa da lay romb ak oto bi wala mbolo wër ko mu tok ci keppaaram ge mbolo wër ko muy xelli café nga ne mustafa bi fi nek mënu ma jaay affaire man na la ko jaay sab kafteer ta jeex kop ñaari nit du ko naan amoo ba ca top bi ngay xam seigne Moustapha fa nga newon jógo gof ligay wut bëgg ko am mu am ko ba nopi dala romb te ya ko xam xamu la nga naan mënuma jaay affaire boba la la ko jaay ndax yow jag rek nga bëgg te mom jag tam la ngërëmul bayam am ngërëmul seigne kon ma ngi leen di sant suñu soo gërëm na ñep man li ñu tuddé stress yalla ko jël ci man awu programme iñan ndax ku mel noo wërtoon a mel amoo fi jotu di iñaane kenn romb naa foofu te ki dimbale ñëpp ma dimbale muy Serigne Touba te li ñuy wut ku ca garanti nit jébbalu la mën a def jox sa bopp sa Serigne te damaa jébbalu na ñëpp mu garanti maanaam garanti ñëpp génn nga ci way ñàkk yi doo dem sawara boo fàttoo àjjana nga jëm mu ne su ko romb bis boo romb bay gën a neex te ba ma ko waxee ba léegi musuma am lu gënul la ma loolu sëñ bi pare naa waaye as gor daa nekk ni naa xale yi démb leen ku lang ak seigne Moustapha def ko xarit te doo jëf ci mom do jariñ do lang ak mom rek da ngay and ak mom léegi-léeg nga mbett ko mbettum biir léegi-léeg nga yurné ko dara léegi-léeg nga ñëw ne ko sëñ bi ma siyaaree li gis nga lolu boko def ca kanam nga jëm waye bo ci seigne bi bis bi morom seigne Moustapha kenn la at mu jot do juk ci di ka fek ñu lay yoon bo bëggee di am luy indi del def ma leen wax lu leer ta da ko xam na ñepp la wax magal gi sax dañoo war bu ñëw bu doonte ne dañoo am wusuk tangal ñu jënd ko siyaaree ko seigne Moustapha loolu boo ko defee dana la jëriñ sëñ Moustapha yaa baax yal na la yàlla jàppale yal na la yàlla taxaw doxal ca kanam. sëñ Moustapha moo ne ma demal dali jàng sëñ maam Thierno nga nekk sëñ Saalix xam nga ne gan gu jékki-jékki ba 11h minuit mu ñëw ci dëkk dër ba noppi ñu mën laa waajalub reer mën laa gunge di waxtaanee yow fàtte seeni nelaw ñu baaxal liggéey. te ba mu guddee ba ma la wooyee da nga leen gànnaa ngi ci pénc mi sëñ maam Thierno mi moo dawal otoom ñu fekk ma fa ma nekk ñu dalal ma tey jii lii am te yàgg na sëñ Sayer mi sëñ Omar mi waaye sëñ Moustapha yow amut kuy ci sa ñoñ démb di la yab te nul n'est parfait seul Dieu est boo ci nekkee tamit sa yitte lépp nga war a xam te day sama yitte te ginnaaw maa ngi wax ak ñuul di wax ak ñu xees sama yitte la te am naa temps ndax ñàkk a mën a gëstu moom ñàkk dépassé koy war a te génn naa ah, ci waaw loolu c'est ça loolu maa ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen yàlla yàlla yàlla defal leen tawfiq sëñ Moustapha sama xol sedd la lool Cheikh Ibrahima Thioub jërëjëf cantu jàngkat yëpp ci yow la nekk noo ngi lay gërëm di la sant di sant mbokk yi xaj na sëñ Moustapha mënuma koo waxal sax na man bu ma ñëwee bëgg koo waxal man ci moom lay wax dama koy wax ne ko li ma la fonk yàlla bu ko kenn xam yow ni ma la fonk yàlla bu kenn xam ndax ginnaaw noo ngi am jàmm kenn du ko xam waaye bu leneen xewoon dégg naa gaa yi tiiree daaru si léegi léegi ku ngeme na échec rek na ne sëñ Moustapha mbubbam mi daa gudd képp te jublu teg sa bopp xam boo léegi da ko wax wala doo ko wax moo tax ni ma la fonkee du man a feeñ parce que jàmm yi am billaahi géey mënta feeñ barke xaadim rasul nit ku baax a ngi nii ngeen xam ne li ma leen wax ku baax a ngi nii barke Cheikh Ahmadou Ba jërëjëf géey